phase bi Dakar la concerné mais duñ yem Dakar euh, ci jamonoy at yi di ñëw dina dem ci région yi parce que dañu bëgg tamit développer transport en commun yi région yi améliorer conditions yi nekk ci région yi parce que tamit comme ni ngeen ko xamee dakaar dëkk bu ndaw la mais daanaka lu ëpp euh, vingt pour cent population Sénégal ñi ngi fi donc jaadu nañu defaraat conditions yi bu baax pour nit yi nu ñu nekkee ak nu ñu fiy liggéeyee mais tamit fàttewuñu région yi loolu tax tax na gouvernement bi jël décision jël ay compétences études élargir ko ci ci ci région yi pour que tamit liggéey bu mucc ay bi mu def fii Dakar mu mën ko def ci région